loolu ëpp solo mooy wax nañ ci stade bi tey stade bi ma ci wax mooy que ni waxtaan naa ci ministre des sports tey li ma wax mooy que ni na na na waa Mbacké daal ndax budget bi nga xamante ni moo ko war a yeggale budget boobu nag ko pare te yemm na te ci 2023 incha allah war na mën a pare ndax it man maa gën a yàkkamti stade bi pare dama bëgg incha allah bu pare ñu def ko final coupe maire final bu musul am Mbacké kon loolu ñu ci dara xel waa Mbacké yëpp ñu waxtaan tamit nekk ci wàllu ñoox ci li amoon ba ci ñu koy naqarlu bu baax a baax loolu li muy symboliser mooy euh, jafe-jafe yi état bi am par rapport même aux communes par rapport engagement yi jël pour yenn projet yu am solo yi projet boobu yeggul te waa Mbàkke li ñu ci waroon am yëpp feeñu waxtaan naa ci ministre de la de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam euh, mu envoyé woon fi délégation euh, ONAS ñu ñëw fi def saytu yi tey jàpp na lépp luñ ci war dañ taxaw ba ba ñu pare liggéey boobu bu nekk liggéey bu bu baax bu am sécurité waaye bu amal njëriñ Mbàkke ndax it euh, branchement ci def ci ëpp jugewul Mbàkke te jàpp naa waa Mbàkke ñoo si war gën a donc loolu c'est un projet que nous portons ñu ci euh, dox avec les responsables au plus haut niveau pour que waa Mbàkke seen bopp ci nga xamante ne moom mooy mooy exploitation ak le traitement des eaux usées des eaux au niveau au niveau de la commune état civil situation bi mu nekk lu doy waar waaye nag loolu dinañ ko fekk ndax it euh, état civil bi la ci ëpp registre dafa yàqu dañoo dafa tawte yi tooy yi ne ci ay saako donc li biñ ñëwee li njëkk a def mooy xool ak président tribunal yan matukaay la ñu war a mën a jël pour pour jëm sax ci li ñuy wax reconstitution parce que it war a fexe ba képp dëkk Mbàkke jëndoo fi da ngaa war a am bu buy firnde wala buy firnde fi nga fi nga juddoo donc loolu ñu ngi ciy wax dox ak euh, le président tribunal te it am nañ archiviste indi fii pour ñu mën dox ci liggéey ci ci wàllu reconstruction bi waaye nag mënul nekk liggéey bu liggéey bu gaaw en tout cas mën a jël engagement devant le conseil mooy dañu fexe ak président tribunal ñu woo ko waxtaan ak moom pour mu alléger encore ou à tout le moins accélérer les les les disons les les pour que ñi xam ne dañ ko yittewoo surtout ñi nga xam ne ñoo nekk dañu am traitement spécial wala un traitement waaw subvention yi dañoo ñëw fekk ñu wate budget bi euh, pour ASC yi waaye dañoo ñëw tamit ne nañ ko yaatal parce que du ASC rek ñoo nekk ci ci dëkk bi am na ay ñu nekk ci def ay arts martiaux am na ñu def pétanque am na ñu def yeneen activité sportive yoo xam te ni laaj na aussi euh, commune Mbacké jàppale ndax li leen jàppale xaalisu Mbacké la day jàppale ñëpp ñoo seen bopp moo tax ñu yaatal ko euh, que nag suma digganteeg sport Mbacké lu yàgg la damay parrainé ay final ay final zone wala final départemental boobu nekkuma maire boobu sax commencé woon politique waaye moo tax may leen sama diggante yéen amul tànk ginnaaw tànkam lay am tey incha allah dañoo fas yéene année yi di ñëw ñu xool ñu koy yokkee pour ñu mën a seen bopp ci ci ci dëkk bi waaye tamit wax naa leen tamit ñaax leen ne ASC du du football dong dañoo war a jàpp ci dëkk bi jàpp ci dëkk bi set fexe am ay reboisement yu ñuy def en tout cas ñu def ay action ci quartier yi ba nga xamante ne dañuy amal njariñ tamit askan bi mu mën a justifier éventuellement augmentation ay euh, subvention yi ndax ma li ma wax mooy am na yéen yokk subvention yi waaye tamit dañ koy yokk lal ko ci contrat performance fexe ba ki nga koy yokkal mu amal njariñ quartier bi mu euh, ci wàllu reboisement ci wàllu ci wàllu salubrité ci wàllu hygiène donc véritablement je pense que le message est bien compris et bien perçu am na yaakaar ne que prochaine dañu gis yenn ay seey ak euh, xatal yu bees. voilà